résultat élection yi mooy la différence fi mu nekk nii mënu ñëw di projeté wu ci ay ay benn poste rek moo ñu intéressé ci rang bu mën a benn poste moo ci nekk mooy le poste de de numéro un la classe le premier loolu ci Idriss <laughs> Seck la waaw xam nga xam nga àndandoo moom lu nekk mën a ci mais moom it xam nga ba muy jàngee kon amuloon ku jiitu nekk classe di élève ni moom mu ci xool dafa dafa dafa jàng ba yàlla xamal ko li mu ko xamal keneen noonu keneen noonu mel na influence nag mën na mais xam naa ne daal li ma gis ci moom mooy moom combat mooy nekk le premier de la classe loolu nag ñun ñëpp mooy suñu vision euh, dégg naa sànq euh, doyen def ci de ci ay témoignages yu rafet. Euh, wax ni deful ay témoignages ay analyses de def. mais analyse yi non attendez xam nga xam nga xam nga xam nga. dafa ne leen bu leen ma dugal. non non non dafa li mu analyser gis-gisam la. waaw mun na dem ba ci biir mu ni je me suis trompé d'analyse parce que la ma yaakaaroon finalement après observation gis naa ni. waaw mais mais au moment où nous par dafa am lu wax loo xam ne ci moment bii la concerné te ci moment bii la ñuy wax li mu wax ci moment bi que ce soit le produit d'une simple analyse ou bien que ce soit le produit. Euh, d'une supposition ou bien d'une attente mhm. li mu wax c'est positif mhm. dans tous les cas ak fu origine bi mën a jóge mhm. donc mën na laa ko jàppe comme wax la ci loo xam ne bi aussi et c'est très bien même bu fekkonte ne jógewul ci sentiment sax moo ñu gënal ndax li nga xam ne ci gis-gisam la la jóge te nekk loo xam bi ku ko dégg ni kii kët candidat bu yaakaaru la boo ko waxee ñun dañ ko rafetlu ndax mën na naa wax leneen bi ci def si mooy wax la euh, problème bi du du lim xam nga Déthié euh, c'est un homme très méthodique il est extrêmement nekkul ni moom ay lim moo ko intéresse coalition bi mille partis ngi ceeg 2000 ak 5000 di lim ay ay partis yu nekk ak partis yu nekkul mouvement yu nekk ak mouvement yu nekkul loolu du problème problème am mooy liggéey teg ko ci njub proposer Sénégal lu ñu mën a dégg am tam ci jikkoom lu mën a doy Sénégalais parce que sànq dafa am lu ma ndox nga yeggale ko mooy ni du xam-xam moo ñàkk Sénégal. façon diplômé bu nekk am na Sénégal du politicien moo ñàkk Sénégal façon politicien bu ne am na Sénégal xam nga lu manqué Sénégal nit ku jub ak nit ku dëggu nit ku jikkoom rafet loolu mooy li gën a jafe tey ci biir Sénégal te yemul ci politiciens yi kese da même dans la société ci biir seen relation da ngay xëy suba ba ngoon di gisu juba di bay ak da bëgg a tax sa bopp nit ñun suñu réew mi lan lañ doon léegi kon boo gisee nit ku jub war nga xam ne am nga perle rare nga téye ko Déthié nag dafa yar boppam xam nga Déthié ba mu dalee politique ba léegi opposition la ma sa nekk. ba léegi waxagoo ma ci programme. programme ba léegi ma programme bi mu proposé. tel axe gis ñu ko feneen wala lii mën na euh, joxe yaakaar yaa ngi may wax yarute bi ba muy. jël pay xam nga xam nga non attends attends xam nga man jàngalekat la nun bu nuy jàngalee dañuy joxe conseil buñ lay laaj bu buñ la laajee lii li ñu la laaj ci ngay tontu buñ